li tax ngeen jog ak espoir bi ngeen am ci projet yi ñu leen projet karam, ñu tek seen kanam mom la Macky Sall ne dina ko dakkal ndax dina ñak ful ba Macky Sall dakkal ko ak ku mu munti andal nak dinañu fekk fi li wone ni daf ko bëgg dakkal tay yeen la Macky Sall di xex yeen jeunesse bi dara defaluko jeunesse bi dara na nak jigen ñi muy mbubboo naan day def ay déclaration yu ñak fay de yo xamni kenn xamul lu mu lan la fi defal Sénégalais yi jigéen ñi tey ñoo gën a sonn ci senegal boo duggee ci dëkk yi sa yaram day daw jigéen ñi conditions yi ñuy dund ñoom ñu toog fii di fëgg ay milliards seeni poos di séddoo kenn xamul ñaata milliards la ñu séddoo moo tax ñu bëgg gëmloo nit ñi ni mbir mi jaral na leen seen bakkan parce que ragal nañu luy xew gannaaw bu ñu ñàkkee nguur gi waaye dañ naan ku aju day bañ ku teen

parce que yéen jeunes la bañ ngeen bindu parce que xamna ni ndaw ñi andu ñok mom te ndaw ñi ñoy 65 de la population sénégalaise mu ne kon primo inscrit yi nga xamne ñi joog am 18 ans ñep na fexé ba bu ñu bindu motax tax mu ne da koy def ben wèr ci lu den juróom ben wèr kon jeunes yi wara porter combat bi ñu and ak yéen ñu xex ko mu jeex nu mu metti metti métti nañ ko xex ben yoon mu jeex ndax bu ñu lajjee nag ba Macky Sall def li mu bëgg réew mi dinañ toogaat ay ati ati at di jooy suñuy gët rek la ñuy yor am na ko jox léegi exemple réew yooyu ñuy wax les pays de l'Est ñoo gën a métti fii foofu ndax xamuñoon démocratie ba léegi sax daana xamuñu ko waaye géorgien yi bi seen président jëlee loi bëgg a tënk presse bi ñoom ñëpp dañoo génn sotti nañ leen ndox bu tàng dóor nañ leen grenade lacrymogène waaye ñaari fan la ñu def gouvernement bi retiré

nun de ci suñu wàll dinañ ko def waaye dañ koy ànd ak yéen askan wi loolu moo fi des